Salut les amis de sport TV, merci encore gars de la confiance renouvelée, merci de vous des likes, merci de vous des abonnés, merci également gars hein, de bailler commentaires, un plaisir renouvelé chaque fois de partager des informations, Inbox sénégalais fait pour

équipe nationale du Sénégal avec déclaration bi Sadio Mané def jëm ci nga xam nak moy donc coupe d'Afrique bi ñu wara a dem incha allah rabi ci 2024 wara amé ci Côte d'Ivoire Sadio Mané wax ci ay messages yu fort jëmale ko ci joueur yi le ko également ci Sénégal mais la tabou nak ah, di remercier aussi Kalidou Koulibaly bi nga xam nak ci dëkkam ci Fouta wóoroste gi précisément la def ben hôpital bo xam mi ngi ni un poste de santé bo xam moko financer financé entièrement mi ngi ngeen gis ko projet bi non lañ ko bëggee ah di gis ñuy doomu dëkk bi di financer ci dëkk bi voilà mo ngook rek ah, on le remercie kii nak di également ah donc qui euh, dit euh, Lamine Camara momi dafa dem te jululu ah, ci dëkkam dem euh, feetewu ji également ak bokam et retour aux sources comme lui-même il a dit mi ngi nii ah, gars yi comme on dit rek preuve à l'appui ni nak di waa Chelsea jënd nañ léegi Strasbourg en ah, Strasbourg bu ñom Habib Diallo léegi Chelsea moko Dadi, daal pendant ce temps Arabie Saoudite ñom annoncé nañ ne ñom dañuy retiré wu ci candidature coupe du monde 2030 bi nga xamné aussi nee nañ ñoom jàpp nañ ne di candidature bu Maroc Espagne ak qui dit donc Portugal ñoom mënuñoo concurrence ñoom motax tax gars yi tout porte à croire que donc Portugal ak Espagne yi gën a ay euh, teg ay jéego plutôt pour 2030 kii nak xam ngeen ko ah ñu ko ko présenter hein donc le joueur de Leicester qui se dirige lentement mais sûrement du côté donc de euh, Tottenham Tottenham bi nga xam ne actuellement donc ñu ngi renforcer li nga xam mooy seen milieu de terrain pendant ce également Chelsea moom lu wax leer Chelsea néna ñom d'al actuellement ku bëgg Romelu Lukaku na nga def offre bu concrète hein na nga tek ben offre ci table bi parce que mom nee demul Arabie Saoudite loolu Chelsea dégg nañ ko avocat am ak agent am leeral nañ ko Chelsea nag nee nañ ko ku bëgg a jënd da ngay teg xaalis abaletu ñu ben joueur ku ji bëgg dal nga ngay jënd xaalis kii du Joao Cancelo Manchester City dafa bëgg a débarrassé wu ci mom fi nañ dal waa FC Barcelone ñoy favori donc pour dal di koy recruter donc mu ngoog Joao Cancelo qui se dirige vers le club Blaugrana bu fekkee ni bien entendu Barça tek na aussi table ci xaalis bi ci table bi ki nak également di wa Doha donc ñi moom waa Qatar selon les informations donc données par PSG Community dañu jox ki nga xam moy donc euh, Mbappé ab diir ne ko da ngay tan soit nga prolonger même bu dee un an comme ça bo jeexalee bo dem sa ñu mën la jaay am ci dara wala bo ki wu ñu jaay la ren ji parce que duñu bay nga dem librement dañu def xaalis bëri ci yow ki nak di également Pedri Pedri moom nee joueur bo xam da nga nek joueur de classe mondiale ku ci ñew rek bëgg nañ te Gundogan bu ñëwee bu féké ne ñëwam bi c'est confirmé nee lool loolu dañ ciy kontaan loolu de jouer au côté d'un joueur extraordinaire comme Ikay Gundo Gan ki nga xamné aussi nak moom mooy donc euh, donc euh, gii di euh, excusez-moi donc Mesut Ozil Mesut Ozil dañ ko laaj ne ko yow boo gisee tey ba numéro 10 mo nga japp ni mo la dàq football jamono ji mu né amna sam benn jeune fait boo xam mi ngi tudd Arda Güler yalla nako chat cheikh seexlu boy bobu aussi war nañ ko xol muy boobu ngeen gis man la Barça da ko daal bëgg ki nak xam ngeen ko Mbacke Fall Mbacke Fall nga xam nak mom ci États-Unis la nekk ñu alun ko Villarreal ah Villarreal nak amoon option d'achat bi mais moom Mbacke Fall annoncé nañ day jógee Villarreal day dellu du côté de club ci Los Angeles donc FC nga xam ne champion de des États-Unis le geste de Sadio Mané li nak match Sénégal Bénin la Sadio Mané jour Bénin bi nak ci championnat Bénin lay lay joué Sadio Mané jël ko photo mu paré may ko mayo mu koy wane fier fièrement ah, avec beaucoup de fierté di wax né également que né Sadio Mané nit ko humble nit ko dal donc dem ñu ngi leen wax né Yoro Mangara dafa wax né donc ñi équipe nationale Sénégal dañu waja waaj euh, boycotté match bi passé wa fédération nak gën nañ def déclaration né lool amul et comme je dis ñun par souci d'équilibre de l'information dañu dañ leen jox information yi ni mu amé ak ni mu waré Sadio Kaiser magnifiquement ne nag def na déclaration ci coulisses yi gannaaw bi Sénégal jéxalé matcham bi contre ñi nga xam donc moy donc équipe bi di Brésil Sadio Mané nak aujourd'hui ki mo Yoro Mangara parenthèse Yoro Mangara mo nek nii ah. donc mom na la wax mo wax waxoon né ah, journaliste très réputé aussi mu né carrément Sénégal dañu naroon boycotté match bi am ñu ñëw def médiation fédération nak démentir na lool ku nek jox nga sa version on vous donne les versions à vous d'apprécier Sadio Mané nag wax né après match contre Brésil bi dafa né euh, joueur yi ñun génération bi ñu am ni suñu objectif moy jël coupe d'Afrique 2024 incha allah bi te mën nañ ko néna comme ko vacances lañ ku na nga dem profité ci vacances yi euh, ñëwagul nag balaa ñoo gisewaat fii en septembre la mais na gaay yi defal loolu nee esprit d'équipe bi mu gis ak génération bi mu gis nii mën nañu wat coupe d'Afrique bi et on l'espère. donc li ñuy ñaan mooy suñu joueur yëpp ngeen profité seen vacances parce que c'est ce sont des vacances méritées dellu sen club jouer ñi amul temps de jeu dem seet yeneen club jouer parce que ce sera décisif septembre la wara war a yeneen regroupement